ancien recteur de l'université Gaston Berger de Nous avons également l'honneur ce soir de recevoir un autre recteur, professeur Ibrahim Tchoub, ancien recteur de l'université Cheikh Ante de Dakar pour ne pas nommer. Imam Cheikh Ahmed Tidjan Nyan, Serindam Sakho Ibn Elaj Ibrahim Sakho, Serin Amadou Cham, sëriñ Cheikh Ibrahima Diouf sëriñ Pape Matar Silla membre membres du Daïra Al Hidaya chers panélistes chers en vos rangs et qualité il me revient ce soir la redoutable tâche de vous lire le discours d'usage à l'occasion du Magal de Darou avec ce panel organisé par le Daïra al Au nom de je le clément, le miséricordieux, louange à Allah, l'omniprésent, le créateur, le maître de l'univers. Que la paix du Seigneur soit sur l'élu, la plus noble des créatures, je veux parler du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il est des moments symboliques que la vie nous offre rarement dans notre existence. À ces occasions, profitons-en pour être utiles. Ce jour du 15 Shaban, en est un de ces moments singuliers. Revenant de son exil de sept ans au Gabon, Cheikh Ahmadou Bamba donna rendez-vous à son intérimaire et homme de confiance, Mam Thierno Birahim Mbaké. Eh bien, l'objectif de cette rencontre était de faire le compte-rendu d'un exilé ayant bravé autant d'épreuves loin de ses origines avec son intérimaire qui lui-même traversa d'énormes supplices dans la poursuite de l'œuvre de son grand frère et guide spirituel. Cette retrouvaille si mémorable est l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui pour sa commémoration. Dans sa tradition, le Daïra al sous la direction éclairée de son initiateur Serigne Ahmadou Mbacké Bachir, a tenu une fois encore à organiser ce panel qui, au fil des ans, grandit et se bonifie. Un rendez-vous qui n'eût été l'engagement de vous tous, n'aurait guère eu cette envergure. Soyez-en donc remerciés sincèrement. À cette occasion, le Daïra rappelle et invite tout un chacun au retour vers les valeurs qui ont depuis toujours été la base d'un monde paisible où le vivre ensemble reste le bréviaire. La solidarité, l'amour du bien pour son prochain, ainsi que le patriotisme au sens noble et strict du terme sont parmi celles-ci. À preuve, l'islam est une religion solidaire dont le message magnifie l'homme. L'instauration de la zakat, comme un pilier majeur de ce dogme en est une parfaite illustration. Le but du troisième pilier de la religion mohammedienne est donc de modérer l'inégalité sociale des revenus. Elle oblige toute personne détenant une ressource supérieure de s'y acquitter en cédant une part aux autres dont la fortune est minime. Le Coran rappelle aux hommes la solidarité sur le bien et non sur le contraire. il stipule Soyez solidaires sur le bien et la révérence, et n'en soyez pas sur la désobéissance et l'hostilité. L'islam veut ainsi une communauté dont les hommes ont des relations de sentiments collectifs. Notre religion recommande que le problème d'entre nous soit celui de tous les autres. C'est d'ailleurs ce qui fonde une nation et le ciment de toute une communauté. le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, réitéra ceci, je le cite, Le musulman est pour son prochain tel un mur dont chaque brique se à l'autre. La société idéale de l'islam est donc une société où chacun voit son prochain comme son propre frère. Aucune des divergences, soit-elle raciale, ethnique ou culturelle, ne saurait être une entrave pour priver l'homme de son de solidarité en provenance des autres. Pour cela, l'homme doit vivre en communauté tout en souhaitant à son prochain le bien qu'il se souhaite. Voilà encore un autre caractère exaltant dans le dogme musulman. Nul ne peut être croyant sans qu'il ne souhaite à autrui ce qu'il ne souhaite à sa propre personne. Rapportons du messager d'Allah. et notre guide Cheikh Ahmadou Bamba d'enseigner cette vertu qu'il avait qualifiée de base de la bonne conduite. Dans son raisonnement, la bonne conduite se résume en ces trois piliers. Que le plus âgé soit indulgent vis-à-vis de son cadet, le cadet soit respectueux envers ses aînés, afin que chacun traite son prochain de la manière dont il souhaite être traité. Cheikhul Khadim conseille aux fidèles de se conformer à la bonne conduite. Le fidèle ne doit guère évoquer les imperfections de ses condisciples, mais au contraire, à chaque fois qu'il remarque ce qui lui semble être imparfait, même si la perfection n'est pas de ce monde sur quelqu'un, qu'il s'accuse lui-même d'en être le coupable. Lorsqu'il est convaincu d'une imperfection de l'autre, qu'il trouve une excuse à ce dernier. L'aspirant doit interpréter positivement tout ce qui lui semble être mauvais. Le cheikh dit, même si quelqu'un évoque sans ambiguïté votre nom en y associant une mauvaise chose, dites peut-être qu'il ne s'adresse pas à moi. C'est le fameux Rafet Njort. Le véritable mouride est donc celui qui ne voit que le bien et demeure non-voyant sur le mal. Il aime tous ses semblables par la grâce de Dieu et s'il doit haïr, que le Seigneur reste la seule raison. C'est dans ce sillage donc que s'inscrit le culte du patriotisme au sens originel du vocable. Le patriotisme, eh bien, parlons-en. Il fait partie des vertus dont notre pays a grandement besoin aujourd'hui pour sa prospérité socio-économique, mais aujourd'hui une denrée rare. Toutefois, le Daïra Al-Hidayah exhorte tous les citoyens à faire preuve de patriotisme pour sauver le Sénégal des démons de la division. En retournant dans l'enseignement islamique, dont le fondateur de la Mouridia a été le chantre, Khadim Rassoul montre que l'humain doit être utile à la société et à la nature. Comme disait sa référence le prophète Mohammed paix est salé sur lui, le maître du peuple est celui qui est son serviteur. Cheikh Ahmadou Bamba était le patriote par excellence lui qui s'était érigé en serviteur du prophète de l'islam et de la communauté musulmane. Loin de certaines considérations galvaudées qui soutiennent que patriotisme rime souvent avec violence, Borom Touba Khadim Rossoul est l'exemple type d'un patriotisme pacifique qui a eu à défendre avec foi et détermination sa patrie face aux colonisateurs sans recourir une seule fois à la violence. Voilà un modèle de patriotisme qui doit inspirer toute la jeunesse, aimer son pays, se sacrifier pour son bien-être dans la voie la plus pacifique. À ce propos, Mam Tcherno Birahim Mbake, dont cette journée est consacrée, était lui aussi un grand patriote. Il était au service de tous durant les moments de désastre. Avec ses abondantes récoltes, il a toujours soutenu la nation Il offrait des semences aux producteurs et apportait aux prisonniers de quoi vivre entre autres largesses. Enfin, dans un monde en quête perpétuelle de stabilité et menacé par des tiraillements entre les grandes puissances pour l'intérêt matériel, un retour aux valeurs devient un impératif. Cependant, l'école de Cheikh Ahmadou Bamba a transcendé son époque pour apporter des solutions par ses nobles principes qu'elle offre. Ainsi, le Daïra al appelle les communautés à s'investir plus dans la quête et l'appropriation de la philosophie du Cheikh, celle gage de l'agrément divin et d'un vécu qui tend vers la perfection. wasalaamu aleykum wa rahmatullah jërëjëfati Serigne Touba jërëjëf maam Cheikh Ibrahima Faty Mbacké Ndamal Darou je vous remercie de votre aimable attention. laa xawla wala quwwata illa billaa bil aliyyil aziim asalaamaaleykum mbokk yi tedd yi fi teew asalaamaaleykum sang yi ak kilifa diine yi ak borom xam-xam yi ak doomu soxna yi fi teew ñi ngi leen di nuyu nuyoob lislaam ci turu sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke moom sëriñ Mouhamadul Bachir moom sëriñ Abdul Khoudous moom borom daarul muxti ñu lottu lool nag ci jéem a tekki li nga xamante ne nii moo di kàddu yi nga xam ne suñu nattango bi di Pape Dioma Thiaré da ko fee yëkkati léegi ci turu ak ci làmmiñu Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké ci kàllamay tubaab moom jiital na ci euh, ki nga xam ne nii moo di euh, professeur di itam ministre doonoon itam recteur de kilifa di professeur Mary Teuw Niane itam ki nga xam ne nii moo doon professeur Ibrahima Thioub nekkoon itam kilifa université bu Ndakaaru ñu koy wax recteur imaam Cheikh Ahmad Tidiane Niang ak yeneen kilifa yi nga xam ne nii ko ci tudd Serigne Dame Sakho ibn Serigne euh, euh, Ibrahima Sakho ak yeneen kilifa yoo xam ne nii bu ñu tuddee ñenn ñi rek daanaka dañuy te bootaale ñëpp ndax ñëpp xaj nañ ci seen ginnaaw. ngir tënk la nag ndax li ñuy wax Papa Diomaye Thiaré wax na ko ci tubaab te xam naa ne ngir njëkk leen teg waxtu wi ak déglu borom xam-xam yi fi teew. moo waral dañuy tënk rek nu mu gën a tënkoo ñu am ci yéene jooju moo waral kon lépp lu luñ ci faay rek ak lu ci mate di rek ñu ngi ciy dog ngante di ci itam dagaan seen njëgal ak seen yërmande moom dafay xamale ne gannaaw ba mu santee suñu borom sant itam li nga xam ne nii moom moo doon liggéey bii ñu koy liggéeyaloo ak taxawaay ak yéen jëm ci am mu ngi siyaare ñëpp di ndokkeel ñëpp di jox ku nekk wàccuwaayam nee nag dafa am ay jamono yoo xamante nii ay jamono yu néewaane yoo xam ne ni dañ cee war a toog di ci waxtaan di ci diisoo te itam fukki fan ak juróom ci weeru shahaban wi ñu nekk nii dafay am lu mu jamonoon teel la mu jamonoon teel moo di tukki bi nga xamante ni ku tedd gi da koo tukki woon ba def lu tolloog juróom-ñaari at ca àll mu nekk itam liggéey boo xam ne da koo jaayante woon ngir askan wi ba mu ñëwee nag ki nga xam ne nii da ko fee bàyyi woon te dénkoon ko itam njaboot gi moo doon itam maam na Birahim ndaamal daaru mu am gise bu mu giseek moom loolee itam doon mbégte ci ñoom doon itam ak tatagal ak siyaare ci ñoom kon nag nee na bu ñu ca yeggee ba ñu koy dundale nii mu doon màggal gi nga xam ne moo doon màggalug daarul muxti dafay yell lool ngir ñu berndeelente ci wàllu xam-xam berndeelente ci wàllu xam-xam nag dara ëpp ci li nga xam ne moo doon yool ak te gën cee yell ñu woo ay boroomi xam-xam taataan ci ñoom diisoog ñoom sottanteeg ñoom xalaat ku dégg itam ñii nga xam ne nii ñoom lañ fi tudd ak ñi nga xam ne itam ñoo fi teew di nga xam ne tey jii incha allah mën naa am ñu am ak bernde ci wàllu xam-xam moom nag nee na ki nga xam ne nii moo doon cheikhul xadim nga xam ne mooy itam doon yaakaaru mbooleem taalibey murid yi ba mu demee defi liggéey bi nga xamante ni moom la defi tey itam jaayante rek tax mu def ko te itam bëgg lislaam tax mu def ko bëgg itam lu noppal askan wi noppal jaam yi tax mu def ko day loolee dañ ciy war di sukkandiku di ci am lu luñ ciy jànge lañ cay jànge moo di dollente ci suñu biir moo di itam laabirante ci suñu biir laabirante googee nag bokk na ci li nga xam ne nii moo doon dëgg-dëgg taxawaayu daayira bii di alhidaaya daayira alhidaaya nag moom Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke moom Serigne Mouhamadul Bachir moom Serigne Abdoul Khoudous moom Serigne maam na Birahim Ndaamal Daaru taxawal ko di ci jàjj di ci soññ di ci jàngale di ci jàng mu nekk daara joo xam ne ni itam géeju xam moo ko tax a jóg ba ku nekk itam boo ci ñëwee dëtam ci mën nga cee naan ba am loo xam ne nii itam daanaka mën naa am loo ci jëriñoo moo doon itam daanaka ci at mi yëpp moo doon ci weer yi moo doon itam buñ ci yeggee ba dëwën nee na nag loolee day itte joo xam ne ni mi ngi ciy soññ boppam di ci soññ ñëpp nee na nag dañoo toll ci jamono joo xam ne nii dafa am ñaari yoo xam ne da koo bokk ñu dëxëñ ko ci waxtaan wi mu doon wàllu jàppalante mu doon solidarité ci la itam indee li nga xam ne moo doon waxi suñu borom ci alxuraan indi li nga xam itam lenn li ci ponk lislaam mu doon al zakat nee na nag loolee buñ ca tënkoo sukkandiku ci di ko doxee di ko jëfe te mu doon lu dëggu ci ñun te ñu da def itam nañ ko war di defee mën naa am suñu borom defal ñu taw feex ba lii nga xam ne nii moo doon ak ñàkk ak tumranke ak rafle ak kenn itam jiitu moroomam ëpple ko ba itam di ko ko wan di ko ko perñaayu loole bu mënta deñ ba jeex tàkkente ne wàññeeku lool ndax loo fi gis mu doon tawat tey jii ñu koy dund suñu borom bindoon na saafara démb tey soog a ñëw te loolee itam azaka bokkoon na ci saafara si nga xam ne nii ba ko suñu borom di sàkk di ko bind di ñu ko digal buñ ci tënkoo amaana lenn li nga xam ne nii itam moo doon tumuranke gi ñu tumuranke dinañ dem ba gën koo wàññi loolu kon nag nee na loolee ndéem dafa doon loo xam ne day ndénkaanal suñu borom te suñu borom fonk ko lool itam ba itam gàll ko si suñuy wagg na ku nekk rik def kéem kàttanam ba ciy mën di sukkandiku ban di ko jëf di ko jëfe ba lépp li nga xam ne nii moo doon lay laabal sam koom nga mën koo jëfe ndax nee na loolee day bu ñu ko deful itam leneen rek la ñuy jural nee na nag loolu doon loo xamante ne nii war nañ ci bàyyi xel bu baax ndax kat suñu borom moom moo ko wax nee na na ngeen fexe ba lii nga xamante ne nii moom ngeen di jàppalante neen koy jàppalante ci ma ak ci jàppale te bu leen jàppalante mukk ci ak loo xam ne nii xotti ma la ak ñàkk jëfe loo xam ne nii ndigal la ak lépp loo xam ne itam moo doon na la ak loo xam ne itam day jur ak fantasiro na bu ci kenn jàppalante bu ci kenn dooleel sa morom nee na itam li nga xam ne ni moo doon lislaam di suñu diine dafa doon loo xam ne nii diine joo xam ne nii dañoo tënk te itam digal ñu ñuy jàppalante ak di dimbalante nee na loolee nag doon na loo xam ne nii mi ngi ciy soññ ku nekk di ci jiital boppam nee na lislaam googu nga xam ne itam ci la ñu nekk di ci wuyoo tënku ci am tawfeex itam nekk ci tere nañu tifaaxan lépp loo xam ne nii moo doon ak noonoo ak woroo ak lépp loo xam ne nii itam dañuy sukkandiku ci wàllu xeet mbaa ci wàllu waaso bay indi loo xam ne nii day indi ak réeroo ci seen biir nee na loolee ëpp naa am nañu fexe ba buñ ci dox buñ ci wax buñ ci yëngu buñ ci itam nàmpatal suñu bopp nee na loolee la jara itam ku nekk war cee mën a gar xar euh, gar bakkanam mu di li nga xam ne ni moo doon ndinkaane loolu te ndinkaane loolu itam dara génn ci lislaam dara génn ci jàppalante dara génn ci itam fexe ba wan ginnaaw du mooyu ak noonoo ak indi fitna ci suñu biir nee na nag am na sax loo xamante ne nii ba tey ci waxi suñu borom ji mu indi ak li nga xam itam moo doon ndinkaane yonent bi sallallahu alayhi wa nee na nag kenn munta doon koo xam ne da ngay di aji way gëm te mu doon lu dëggu ci yow te li nga xam ne nii moo doon la nga bëggal sa bopp nekkul ne loolu nga bëggal sa morom nee na loolee moom fekk làmb nañ ko te dajuñu ko ci suñ biir ak nañ xamal ne suñ gëm googu day des ba tey ci li nga xam ne nii moom moo doon waxtaan wi ak kàddu yi tukkee ci Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké nee nag dafa am sax loo xam ne nii ndax daray Serigne dafa génnu lislaam daray lépp lislaam itam dañ ko gis ci njàngalam Serigne Touba moo tax ku tedd gi Cheikhul Khadim xamal nañu ne rek bokk na ci lam ñuy digal képp koo xam ne nii dafa féete mag na am bëtu yërmaane bu muy xam xool ñi nga xam ne nii ñoom la féete suuf bi maanaam mag ñi nañ yëram ndaw ñi nee na itam ñii nga xam ne nii itam euh, moo ñoo di ndaw ñi nañu fexe ba war ma ji nga xam ne moom la ñu war a jox mag ñi dara buñ ko ci day naagal na lépp mat sëkk lépp itam doon loo xam ne nii ay cër yu mat lay doon buñ ca wàññi lenn waaye yemul foofu nee na nag ku nekk na fexe ba rikk waaye nañu mu jàppee moppam yéene ko boppam na ko jàppee morom di xool bët boobee moromam nee na loolee nag doon na ñett yoo xam ne nii ay kenn la ñuy jàngale te mi ngi ciy soññ boppam di ci soññ ñëpp nee na nag lii nga xam ne nii ba tey moom moo doon ci njàngalem Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasoul nee na day lii doon wàllu taxawaay boobee nga xam ne nii moo doon taxawaayu lislaam taxawaayu taalibe nee na képp koo xam ne nii yaa ngi ciy gis sa bopp lay ca doon def benn ña ngi ca ñaar ci képp koo xam ne itam fekk na ne loolu gane wala mbaa jëfe ko da nga fexe ba waññeeku dellu ginnaaw fexe ba jëfe li nga xam ne moom moo doon jàngale moomu nee na nag loolu bokk na ci taxawaayu alhidaaya bokk na ci taxawaayu li nga xam ne itam moo doon yoon wa alhidaaya sàmm mu doon itam sàll woo xam ne nii nee na bu kenn jàdd ci ñall wi ndax ku jàdd ci ñall wi mën nga faa fekk ab nee na itam li nga xam ne nii moom moo doon liggéey bi li nga xam ne nii moom moo doon taxawaay bi li nga xam ne itam moom moo doon bëgg-bëgg bi toll nañ ci jamono joo xam ne ni jamonoy fitna la jamonoy joo xam ne itam jamonoy coow la ak jamonoy jàppante nee na nag loole am na saafara ak shifa boo xam ne ni bindal nañ ñu ko bàyyil ñu ko fi te buñ ci tënkoo di ko yër itam amaana loolee nga xam ne nii moo doon fitna jooju mën nañ koo teggi mbaamu teggi ñu nee na nag loolee dara jiituwu ci li nga xam ne nii moo doon bëgg sam réew xam itam nangay bëgg sam réew ci wàllu dal ci wàllu teggin ak ci wàllu war ma joo xam ne ku nekk war na ko mën a jox boroomam ndax nee na loolee kat Cheikh Bamba Xaadim Rasul mi nga xam ne nii moom la ñuy wuyoo nee na ca la ñu nargan na ku ci nekk nargan boppam ca loole itam loolu la ñuy jàngal loole itam moo doon yoon bam ñu teg te kenn warta jàdd woowee yoon nee képp koo xam ne itam xam nga mbaa nga yër dara ci am njàngaleem xam itam dégg tuuti ci ay jaar-jaaram mbaa ci ay waxtaanam mbaa ci aw meloom mbaa fa nga xam ne itam fa la tegoon tànkam ku nekk xam ne ne dem na dikk na dem itam jaayante na la mu war a jaayante tey bant damul xatitam damul kon nag nee na jikko yi nit ku dal la yi nit ku am war ma la nit koy nit ku am itam di dàq lépp loo xam ne doon fitna la ak loo xam ne itam day doon musiba nee na nag loolee nga xam ne nii moom la demoon liggéey mu doon ngànnaayam mu dem ba dellu si ba tey jii ñuy amal li nga xamante ni moo doon màggalu Touba ba tey jii itam ñuy amal màggul Daaru Muxti mu doon gise bi nga xam ne nii itam moo doon ay seen ab gise day ak seen ab jataay day nee na loolee ku nekk war na cee mën a tënk boppam ndax nee na ca tënku te itam ca lay tënkle neen nag kon nee na dal googu ak itam indi li nga xam ne moo doon bëgginu réew moom ndax nee na loolu xeetu bëgginu réew la ndax patriotisme génnul dara génnu ci bëgg sam réew te xam na nga koy bëggee patriotisme nag nee na moom ba la mu gëm tey joxe woon ko moo di lenn luy niroog na nañ ko dàq lépp luy niroog na boog nañ ko dàq lépp luy niroog itam xaw a jege fitna nañ ko dàq waaye lépp loo xam ne day indi ak rafetoo ak bennoo itam nañu fexe ba ku nekk gar ci bakkanam ku nekk itam nargan ci boppam ba tey nee na li nga xam ne nii moom moo doon wàllu jàmm ak bëggante ci suñu biir nee na nag loolu doon na loo xam ne nii ku nekk naka def waajib li tubaab di wax bréviaire bi maanaam mu nekk téere boo xam ne nii da nga koy def ci sa lalu bopp sa livre de chevet saa su ne nga ci koy yër di ko xool di ci itam jajju di ciy gën mu itam teg sa sa sa bopp de nee na loolee doon na loo xam ne nii lu muy digle la digle gi itam ci patriotisme bi nga xam ne moom la Serigne Touba. ak noonee nga xam ni itam noonee la nekkee woon ci ak dundam te nañu ko xamee ak lañ jot a yër ci moom te mu jàngale ko tam yar ci mag ñi te kenn jiituwu ci maam Thierno Birahim Daamal Daaru bokk na ci liggéey ndax ku nekk xam ne ne moom Thierno day daan na béyi ay tool ba saa su jamonoy itam mu am loo xam ne da koy dimbalee nguur am loo xam ne itam ña caabi da féete ginnaaw ñu nekk ñoo xam dañoo am ak yoon itam jàppale gu leen di jàppale ndax léegi-léegi itam seen nekkin a métti lool nee nag loolee mi ngi ciy soññe mi ngi ciy jaajër ndax doon na loo xam ne ku nekk da cee war a tënku ba tey ci li nga xam ne nii moom moo doon aw melo ak jikko yoo xamante ne nii dañ ko war a am ndax nee na fi mu nekk nii ku nekk xam ne ne àdduna yëngu na ñi am doole ñi ngi not ñi néew doole ñii ñàkk war ma itam ñi ngi am jëflante goo xam dañ koy sësante dënn ak ñeneen te leneen loolee gënut la gën nag moo di ak dal te dal googu dara jiituwu ci moo di njàngale mi nga xam ne nii itam sëriñ bi dañu koo jàngal moo doon ay teggi nag war ma ak jikkoy maqaarimul axlaax loolee ñu dellu ci ku nekk itam mën cee bay waaram ku nekk ci jàngal ci boppam jàngal ko ay moromam ku nekk itam yër la nga xam ne nii moo doon àlluwaam la ca rappelé mbaa itam la ca manque ci wàllu woowu mu fexe ba gën a matal loolu nag xam naa ne damaa lott lool itam te itam xam-xam bi ma ko ci tënk bi foofu la ñuy teg kàddu gi ndax borom xam-xam yaa ngi nii te itam xam naa ne seen xam-xam itam xaar nañu ko lool ak ñi nga xam ne itam ñoo doon doomu soxna yi ñu ngi leen di tuubal di leen jéggalu ci kàddu gi lépp lu ci di xam naa ne sama àlluwa ju gàtt tax waaye lépp li nga xam ne daal moo doon yéene ji moom lii ñuy wax ni du asaka ji ñu ngi teg foofu kàddu gi di leen balu xaq bu baax di leen bal